nga ne nag maa bëgg. dama la bëgg sama xol day sedd ci dama la bëgg xaw ma lan la. Ah. yàlla ma ko nattoo yow laa bëgg. man nga bëgg daal kon sama projet la jàpp. sa promotion dafa jàpp man la njëkk a jàpp. yow <laughs> la njëkk a jàpp man la balaa keneen dee <laughs> naa teral fas yéene indi yu baax fas yéene nag reetaanloo durant toute la soirée ndax ñun ngeen ñu xaar nag pour ñu ngeen dem tëddi tranquillement ndax xam nañu journée bi ça été dur ñu am kontaante bu baax ay seen ni ko waxee rek lay demee amuñu sedd fay mm-hmm. ndax ñoo bàyyi lépp bàyyi fépp bàyyi ñëpp toog duñu setaan mm-hmm. yàlla mi yor pay yàlla na fayal boppam suñu téléspectateur u 2STV yi ak jaaraama yàlla mm-hmm. yàlla guddal seen i fan te wéral seen i xam ngeen ne comme chaque soir il faut ñu tibbee li nga xam ne ne moom mooy sponsor yi su ma waxee sponsor sa xel day dem ci Patisen ak l'écran yu baax yi def chaque jour baaxkat tëbtal dama am na benn proverbe bu ma waxoon dara dama mu ne ma nag ba ñuy suñu jamono meew pëndax bi moo amoon ah, maam sama maam noonu la ma wooye ay see ay see ma ne ko maam mu ne ma meew pëndax moo amoon ci l'écran moom lañ xamee woon ma ne ko nag maam ma jàngal lu bees mu ne ma naam ma ne ko am na yu bees lan mooy lu bees bi. concentré. waaw kenn du moom. ma jël bu mag bi nga jël ban. waaw ma jël bu ndaw bi rek 170 grammes. mi man ma jël 410 grammes bi. tubaarkàlla muy meew concentré entier non sucré. boo koy yëngal na muy pulux pulux xeer rek ngay xam ne tubaarkàlla meew pire la. day pulux pulux pire. <laughs> non boo ko yëngal boo nga xam ne ne meew pur rek ngay xam ne meew pur la tubarkalla kenn du l'écran te xam nga man lan moo may neex ci meew nga meew xam nga ko xam dëgg mm. meew da ngay jox mag yi dëgg la ñoom ñoo xam meew xam nga xale xamul meew parce que xale moom loo jox mu naan mais mag ngay jox meew ndax mag yi lu dul meew pur duñ ko naan soo leen joxee meew boo xam ne nekkul meew animal pur bu jógee ci nag mm. duñ wala ci bëy wala ci leneen duñ ko naan nga jox leen meew végétal dañ naan eh lii du meew bu pire bi. danoo xam li muy faj. moo tax ci ñoom laay testé. danoo xam li muy faj. jël jël l'écran def ko ci benn euh, kii benn bool wala benn pot jël beneen meew def ko ci benn jox ko mu ne ma bii yay meew pire bi xaw ma ban meew la. te fekk boobu l'écran la test la ñëpp ay test la. tubarkalaay see. Mhm. nee la l'écran mhm. day faj. dëgg la gis nga lu mu neex rek. Mhm. la muy saafara ko doole. dëgg la ni nga koy gisee nii. kon lekk baax ci ABC. la cat baax ci tension. tubaarkàlla kon kay kenn du lekk la. baax ci sibiru. ah maa la wax soo soo sibiru sax soo meew da ngay wér. baax ci góob. kon maintenant tu es docteur. Amalou <laughs> docteur de lekk yi <laughs> muy faj a bari te bis bu set ma teewee fii rek mën naa leen wax ñetti l'écran di faj <laughs> te xam nga man ndeysaan sama plateau bi dama am ay ñoo xam ne ne euh, lu ne la doon c'est l'homme aux douze métiers waaw moom nag mooy monsieur métier donc tey c'est docteur ah, Omaro de l'écran te su jógee ci l'écran dem ci patiente doon fa docteur ah, tamit mu ngi noonu kon nag comme docteur Omaro nee de l'écran nee day faj bépp maladie boo xam ne am ngeen ko rek tuberculose sibiru sibiru waaw yëpp da koy ak xiif malade de xiif waaw waaw xam nga malade de xiif xiif la anémie manque d'eau manque de calcium manque de calcium vitamine C vitamine E vitamine D yëpp ci biir damaa sonn tout l'écran action maanaam nee na boo feebaree ba sonn bay bëgg ah, dee soo daanee l'écran mu daal di la fortifier may la doole may la cawarte kattan nga daal di jug ne mét daal di jàkkaarloo entre temps jàkkaarloo 2STV la ah, première chaîne privée du Sénégal mu ngi nii nag kon nag l'écran xammee ngeen ko ci pot bu ndaw bi ak pot bu mag bi muy les concentré anti non sucré bi les liquide bi ngeen mën cee def li faa wax ay gâteaux pulux pulux pulux pulux pulux lay def de sama pulux pulux lay def da ngaa naan potu meew da ngaa naan potu meew yow est-ce que yàgg dégg ni muy def da nga koo naan yow da nga koo naan mi ngi di wax lan ba ma juddoo laa la wax am ñetti fan ci hôpital principal laa la sama yaay maman. mu ma wii ma ne ko dul la. l'écran. noo ko waxee. da laa la lool rek dalu fële da ngaa yebaa mu ne ma ne ko dul la. xam naa ne yaayu Amaro. il faut que dul la l'écran. tata yaa ngi toog duñu seetaan lu ne Amaro dékk na la ko ci sa kaw. soo xam naa ne sonn nga waaye yàlla la yàlla fay. ndax muñ nga lu ne. ñu jël kooku di bippe Amaro ñu xool kan la. mbokk mi ci liñ bi salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. Moro ñu ngi lay delloo ziar bu baax sang bi di la euh, bëggee. di nuyu di di nuyu Aïssa Mamadou ngi lay fay bu baax ñu lay fay bu a baax. Euh, di leen di leen félicité di leen encouragé. bi. bon man tey lu baax li dinaa ko wax ci restaurant dinaa ko wax ci pâtisserie. waaye bu fu jógee dinaa wax lu baax seen directeur El Hadj Ndiaye parce que mu ngi def lu am solo. alhamdulilah rabbil alamin. jërëjëf ndax euh, wax dëgg yàlla dañ ne Omaro. waaw. lu baax ngeen koy wax. dëgg la. ndax lu baax boo ko waxul. waaw. nit dana taxaw fee waxal la lu bon te lu bon la la ñuy gis. dëgg la. kon Alaaji Ndiaye li muy def ci wàllum audiovisuel muy télévision. kenn moom. ah askan yëpp teg leen ci seen bëj. dëgg la xolam set la tey ci suba. ma ah. yàlla daa dogal dama nekk congé. Mm-hmm. mais dama seetaan plateau euh, euh, Sénégal sa kanam seetaan plateau bi yaa awa di def. sama tey seetaan seen plateau seetaan plateau kër gi. dëgg la Alaaji Ndiaye dana liggéey téeméeri at bu ko dab. alhamdulilah alhamdulilah amaro nag yow ku la ku la ku la waaye bilaay maa papa. kii ku lay papa maa koo bëgg bëgg na la. waat naa ko ci Cheikhu Tidiane nii damay julli sax di la ñaanal. ndeysaan alhamdulilah yàlla na ko ñaan. ne yàlla yàlla ko ñaan ndax yàlla daa ci yow. dëgg la. mais boo waxee nit ñi dañ lay bàyyi xel. te loolu yàlla mayu ko ñëpp. dëgg la kon li tax ngay wax nit ñi bu bàyyi xel. Mm. dama bëgg nag euh, boo toogatee plateau bi del wax ni directeur lu baax muy El Hadj Ndiaye di def lu lu baax li ñu def ci réew mi. incha allah mais kon nodd doon réew yëpp yëpp ko parce que am na bët yoo xam ni. waaw ah danañu gis laa duñu danañu xool waaye duñu gis. dëgg la. balaa ñuy mën a gis rek. nga wax ko. wax ko. dëgg la te yow mi boo waxee. nit ñi dégg la. maa koy octave ca sa patron la sas de. ñun hmm, dañoo kontaan ci Alaaji Njaay. ñun danaa ko wax ca kaw sama nijaay. suñu télécommande la ñu yor. dëgg la suñu neex rek la ñuy jàppee. kon entre temps. Mm-hmm. dama remarqué ni képp ku woote ci entre temps rek. ba leen wax lu baax. te ñooñu jëndoo leen fayoo leen joxoo ci kenn dépense. dëgg la dëgg la kon entre temps am na solo. kon professionnalisme bi Alaaji Njaay di woote ak qualité. Mm-hmm. Dóor TV képp koy bàkk rek ci qualité ak professionnalisme lañ koy bàkkee. ah kontaan nañ bu kon professionnalisme boobu mu ngi ci yéen qualité boobu mu ngi ci yéen bu leen ko wàññi yokk leen ko. l'écran mhm. mooy meew mi mën ci mbéy mi. moo tax mu ñëw ci émission bi mu ci émission bi. papa yow lan lay moom mën ci dëkk bi. waaw Fatick moom moom mën ci dëkk bi. loolu kenn werenteetu ko. dëgg la lépp luy agroalimentaire fii ci ñun réew. Fatick mooy téye. Ah. moo tax mu ñëw ci émission yi mag yi. samp fa ndam teg fa tànkam. Mhm. boo demee Bantamba euh, ma nga fa. tam boo demee sa matin saa mu ma nga fa. boo ñëwee seen entre-temps ma nga fa. comme le meilleur le meilleur rek la mën a àndal. jeex na mu ngi noonu. partisan partisan bi ñu juum. dëgg la sëñ bi kenn du yow. kon mhm. kontaan nañ bu baax ci sa intervention kontaan nañ bu baax ci dugg bi nga dugg ni ngay waxee xam nañ ne mhm. xol ngay waxee noonu. dëgg la moo taxit. xam nañ ne plateau entre temps dëgg la plateau euh, waxtaan kaf la waaye plateau teranga la tamit. dëgg la te ñun ku ñu ko tumbax. ci mbax li mbax la ndax ale boo gis. am na man sama sama sama sama sama xam naa ni ay saa ñaari teranga mooy da nga may teranga l'écran may ma teranga pâtisserie. <laughs> waaw sama teranga écran may naa ko Umaru. ah sama teraanga Pakistan ah. may naa ko BBC. ah kon nag neex na parce que BBC moom du def lu am solo ci ñun yi. dëgg la maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm. salaamaaleykum wa rahmatulah yal na leen yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi eh, jërëjëf kontaan eh, nañu jërëjëf kontaan nañu yàlla la yàlla fay. ay see ay see jëmm ju baax ñu nii. dëgg la ah, xamuñu ko xamuñu turam. waaye na ko wóor na it ni ñu ngi koy safoo te teraanga yi delloon na ko sunu xol sedd na ci moom teraanga nag teraanga koy fay mhm. teraanga jiguma ti mbax waaw waaw bu soobee yàlla bii moom bu may dem daf may topp sama kër moom topp la tegal may na ma ko ah, xanaa mayu ma ko ëppal nga wax ah. yow nekk de musoo musoo seb xam nga sama sama bàyyi ju baax ji teraanga teraanga koy fay te ndéem tubarkàlla teraanga laa mën nga ko may mag bi dafa ëppal bu may dem danaa ko waaye ay see bébé suu ay sama bàyyi ji wax na lu rafet waaw wax na lu rafet gis nga laaj njaay mhm. tubaarkàlla jàmbaari Podor ji jàmbaari Fuuta ji kenn amul fayam nee naa ko Njaay jaata Njaay la nga bokk la mboole ak la nga doonu dara mënul doon benn mhm. ndax maa ko ak moo ko ak ñoo ko danu bokk nunu te bokk nu funu moo ko doo ca balaa nga caa mën a ne ca ni ma ca da ngay dem ca ñekko nga ne leen ñu na la lala ca nga doog caa mën a ñoo ko nag ci nga waaye balaa nga caa mën a ca ni ma ca dem ca ñela ko nga ne leen ñu na la lala ca nga doog caa mën a ndax su boobaa loo ma ca du ko nag da koy taxa mm. maa ko nag du kenn ka laaj Njaay mi moo ko Baye Sala Ndiaye ak Abdou Ndiaye tubaarkàlla baaxkat bu mag bi bu baax doon doy doy na bu yàgg ah. sama baay ji woot ci ligne bi moo ma ko sant moo ma ne oftaaf ko ca kaw na moo ma ne oftaaf ko waxal lu baax ci àllaaj ji enveloppe ñëw na ci bureau ba alhamdulilahi rabbil alamin enveloppe yónnee nañ enveloppe alhamdulilahi ko def waaw madame mu baax mi sunu yaay lii lépp yawa ah. yaay yàlla yàlla guddal sa fan te léegi sax te léegi sax da am ay rediff ah da nga am ay rediff à ay see nee naa la ti mbax ri mbax ndax ale boo gis am na tuur te gis nga lu baax lu baax koy fay mm-hmm. nee naa la yàlla lu yàlla defal cat dëgg ginaar da naaw ca sa ko wàccee ni pigeon di naawee ak céelik picc nii la ginaar doon naawee dëgg la waaye daa dëgg la rek ñu ne tubarkàlla ko jonga ma tubarkàlla xoola laafiya eh? tubarkàlla xoola bopp ba nekk ginaaru sëkk la rek mu wàcc sama papa pikir nga ëmaro chéri tu descends vers les octaves sama papa daf ma piqué a jàll ci octave bi ndax tey dafa mel ni jël nga ah, moom plateau bi sama jeex na ndax lu baax lu baax koy fay piqué nga ko ëppal tonton waaw ah, jërëjëf piqué nga ko xam na ne su tàmbalee du arrêté ñu jël ki nekk ci ligne bi allo allo hmm? allo voilà su fekkee ne na mën na jéem a dugaat mu daal di dugaat ñu continuer Omaro ah ñu ngi jógee ci sunu papa daan lugul daan da daan léegi dugalal pâtissière bu ngi noonu kon xam ngeen comme pâtissière comme suñu sëñ bi li mu wax rek mhm. nee moom xam nga ne mooy number one fii ci agroalimentaire fii ci Sénégal te loolu nag defe naa ñëpp xam nañ ko kenn werante pâtissière ay teraangaam la yor moom pâtissière jaayul kese dama moom day teral nit ñi day jël ay bagages di ko may nit ñi sax moom dara dikkewul ci dara. ayisee dama la ne dëmm ma mën jinne dëgg la ah jarul wax magum jëmm. waaw waaw ayisee. Mhm. dëmm ma mën jinne mm. jarul wax magum jëmm. li pàcc seen def ci réew mi. Mhm. ku koy nattable da ngaa yore nopp. baa la yore bët. dëgg la waaye ku yor say nopp yor say bët di dégg tey gis. xam nga ne mhm. pàcc seen raw na ci gars yi. dëgg la. Nabil mu ngi noonu donc xam ngeen ne seen comme li ma leen wax mooy number one fii ci Sénégal. Euh, lépp loo xam ne ne ci ndékki ci bouillon maanaam saf-safal ñoom ñoo fi number one xàmmee ngeen Adja xàmmee ngeen Ami xàmmee ngeen dolli te nag caravane bi nga xam ne pâtissière ma ngi ko lancé depuis tabaski ba léegi neen da koy continuer xam nga dafa ne woon wala da a bëgg ñu jël ki ne ci ligne bi jëlal sama xarit bi ci ligne bi ñu jël ci nekk ci ligne bi allo. allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam sëñ bi na nga def. ça va na ngeen def waay. alhamdulilah ça va la. waaw man de tur bi est ce que moo bëgg rek seen moo ci bëggee. ah kon ah, alhamdulilah waaw foo ñu woowee. non maa leen di woy Manchester. Mariste. Eh? Mariste nga wax. non maa ngi woowee Manchester. Ah, Mali. Mali. Mali nga ñuy woowee. non Manchester. ah, ah Manchester. d' ah da leb tur waaw damay jóg tur bi. ah waaw Manchester dugg nañ am nañ foofu ay soppe ay xarit. tubarkalla Chamberlain ñu ngi woowee Chamberlain suñu xarit boobu ca Manchester. nit ñu baax lañ fa am. alors sëñ bi na yaa naka ngay dundee sa entretemps foofu ci ci Manchester. waaw mais di leen bëggee di leen bëggee chaque jour di leen seetaan di kontaan. dëgg la euh, léegi nag dama déglu paa bi romb léegi mu wax lu am solo. dëgg la. di kooku di lu papa jooju El Hadj Ndiaye. waaw El Hadj Ndiaye. Mhm. ok El moom ndax liggéey bu am solo la. waaye yéen ñi tamit kenn demul ngeen. dëgg la kenn du ñun de dama lay wax rek nag papa kenn du ñun. non li nga wax dara du ko. waaye lenn rek laay ñaar. man El Hadj Ndiaye laay. dëgg la dëgg la nga xam dañoo nekk. di di di bëggee seen bëggee sa euh, dëgg la di émission en dëgg la. ñu ñu koy gën a avancé dañuy toog dañuy toog ba xaaju ndeysaan pour xool leen man ma tourné xool ay saa ndeysaan tourné xool Berbitou tourné xool Eva. dëgg la wala ma xool sama sama sama doomu ndey Faafa wala ma xool Omaro. dëgg la may kontaan ma ma tëddee rek nelaw. xool sedd na. léegi nag dañuy bëgg mu teel dañuy xëy dóor yi waar fa. ah day ñaan pour mu pour pour heure bi mën a wàcc daal ndax nee na def comme dañuy guddee wàcc. ndeysaan heure heure bi mën a wàcc ba pare ñu yaatal ko. Mhm. léegi léegi sëñ bi. mbokki Manchester mbokki Chamberlain de Manchester comme laa leb tour bi comme nekk fu ne nii affaire yi 22 heures lay tàmbal te xam nañ ne yéen ñi mooy sénégalais de la diaspora yi yéen da ngeen ni heure bi day fekk mu guddi ci yéen wallaay li ñu doon wax ak Omaro léegi léegi El Hadj joxe na ndigal neen nañ koy rediffuser à partir de 18 heures à partir ah waaye ah, ah, El Hadj daal joxe na ah, ndigal bi ah ki nga xam ne moom mooy Abdoul Ndiaye suñu directeur euh, euh, def na ndigal bi. la révélation moo ko jottali. Ah, da ko jottali kon na leen boo boo daanelee rek tubarkàlla rek la révélation de El Hadj Ndiaye dana jottali ndigal li. tey la révélation bébé jërëjëf wàllu baax wax ca wax ko expliqué ko expliqué ko. loolu loolu neex na trop parce nag léegi nag beneen li ma ci dolli rek mooy. Mhm. waaw. Euh, yéen yàlla leen yàlla. Mhm. amiin ndax nit dina nit dem di liggéey. amiin ñaan patron am rek. amiin man damay ñaan yéen yàlla fay amiin yaa rabbi amiin ndax la baax na yéen a ngi yeete nit ñi am ak ñoom jàmm. allah yal na yàlla la yàlla fay sa xol yal na la yàlla may temps bi nga am jël sa xaalis jël sa téléphone daal di composé numéro 2STV daal di waroon tëddi comme li wax ne na mu ngi waroon tëddi waaye nag war a xëy liggéey te xam nañ ku ne waa Europe dañuy teel a xëy 5 heures du matin fekk na ñu ci yoon bi kon ñooñu ban heure la ñuy xëy kon nag kontaan bu baax jàppal ni soo ko ratee guddi wala su fekkee dafay tardé jàpp ko 18 heures heure Sénégal. waaye dara dafa tax direct xam nga sànq ba léegi yéen a ngi naan l'écran l'écran ak direct bi nen direct bi waaye xam nga yéen a ngi naan l'écran muy meew ma ma maay man man man man je euh, damay des ci l'écran waaw l'écran que je vois quand je vois sur l'écran Aïcha quand je vois sur l'écran Eva Sow quand je vois sur l'écran Omaro wala Fapal rek sama xol seen dëgg la ñu naan ñuy joxe l'écran nag meew waa du leen ma jox ci meew ñu jox la teraanga yi. waaw. ah ay kay ah kay fuñ la koy yónnee ban la koy def ba yónnee la ko. ah man si koy yónnee a excité. am nga fi l'écran. ah yow daal bàyyi fi numéro rek ak bàyyi fi mu a jaar. voilà bu fi sa numéro téléphone ak sa li nga xam ne mën nañ laa jot jokkoo yow nga xam ne dañ la teralee l'écran soo fi amee mbokk yu fi nekk Sénégal ñu jox ko waat ñu jox ko l'écran dégg nga. jeex na tàkk man xam nga man maay man man. entre temps bu nekk man ci laa bokk dama ah, bëggoon ñëpp def réunion ni moo ah. ma doon nekkee ambassadeur u euh, Cheikh de def ambassadeur u entre temps ci Europe ma géré mooy yow kon alhamdulilah mais kon yow kay bu lépp tur bi waxal tur bi rek waaw est-ce que est-ce que waxal tur bi rek xamoo tur bi rek dafa kaa <laughs> ah, kon alhamdulilah léegi nag nee na moom mooy l'ambassadeur de entre temps fee ca Manchester alhamdulilah kenn amul fay bul coupé Euh, bàcc li jël sa numéro de téléphone ak sa adresse comme ça ñun suñu paree équipe bi yëpp dinañ la woo ñu daal di euh, ficeler mbir mi dégg waa loolu dara mën na. waaw kontaan nañ kon nag bul coupé Bathily eh, jëlal numéro Moussa moom sunu ambassadeur foofu ca Manchester. Ah, tubarkàlla kenn moom. waaye nag fu Manchester ah Cham mooy doon président su waxee ba nga xam ne ma nga ca. ah, ah mooy premier ah, fan Manchester de. mu ngi doon mu ngi doon takk jabar. jour anniversaire am. donc ñu ngi koy souhaité waat euh, reménage ak li nga xam ne moom mooy joyeux anniversaire. xam naa ne mooy président fan club bi ki nga xam ne moom mooy Moussa soppe bu bees bi nga xam ne dugg na moom di ñu moom it nee na moom mooy l' ambassadeur de entre temps xam naa ne ku sama sa sax mais ca Londres yëpp maanaam ca Angleterre yëpp Grande-Bretagne yëpp moom moo fay ambassadeur kontaan nañ ci yow nag ko yàlla fayal rediffusion bi moom kenn amul fayam mhm. ay see dama loo wax ne bëgg ci gan yi bu doon tax am ci gan yi chef de li gan ndax ku wàcc gaar ga ci moom ngay jaar mhm. te tubarkàlla macha allah sama rakk ji nee naa la benn nen bu ko mbooloo bokkee doo ko baxal doo ko omelette da nga koy mayonnaise ku ne soos te nag bax bari xar nag tubarkàlla taxuloo ngénte nag ku nu jurul dëgg la gis nga nun lu nuy bari bari bari xar ku nu ngénte rek ñooy bàyyam parce que bi mhm. yàlla yàlla guddal fanam amiin yaa la heure bi mhm. xëy jàngi ñii naan dañuy xëy liggéey yooyu coow 22h bi 22h la 23h. Mm. yàggul waaye nag ku ko mënta xool. boo nekkee say activité baa ngi xëy jàngi fu la 17h fekk. dëgg la bàyyi loo jàppoon dana toog sa kër ga teg la say tànk te xam ne 18h pile. Mm-hmm. di nga ay see. waaw jàkkaarloog son excellence. Mm-hmm. tubarkàlla la révélation de El Hadj Ndiaye l' ambassadeur l' internationaliste heureux monsieur Afeja ànd rek. <laughs> jàkkaarloog Fafa Show jàkkaarloog Eva jàkkaarloog bébé suuf suñu rakk ju baax di suñu doom ji kon nag rediffusion yi ko ñëpp xaar. bii daw lundi la ñuy rediffusé mardi 18h. bii daw mardi moom la ñuy rediffusé mercredi 18h. bii daw mercredi moom la ñuy rediffusé jeudi 18h. bii daw jeudi ci guddi moom la ñuy rediffusé lundi ba ki topp. ah vendredi diffusion du am ndax cant gi mooy am. tubarkalla ah dégg ngeen émission am la kon xam ngeen ne kii. nit da gore. Ah, bëggoo bëggoo ñu dindi. Euh, non non non cant gi kenn du ko dindi parce que mënu ma ko war. cant gi maag moom démb la tey soog a ñëw. cant gi moo ma indi ko yemale ci cant ñu ko noonu. noonu. Ah, kon léegi révision ko yemale parce que cant gi àjjuma foo muy ñëw. waaw d'accord léegi nag ndax cant mooy développement interdiction na yem ca cant ga kon Ah. laay nee na fa lay yem. amul problème je suis d'accord. c'est d'accord bu la ko jaralee rek. man moom dimbax eh, eh, rimbax man dimbali ma lebal laa lay fay dimbax rimbax. dama lay sax dama lay saxal lekkaraan ah, ñu fàttali ne euh, Patty ah, ñu ngi ci caravane bi mooy Patty Sène donc tey ñu ngi woon Thiaroye xam nga Thiaroye euh, euh, sax Thiaroye lañ nekkoon. donc Thiaroye fa lañ nekkoon tey suba ñu ngi waay mm. waa Patty Sène ñu ngi Géejawaay kon nag waa Géejawaay pare leen yéen ñëpp seen i produit Patty Sène donc Patty Sène nee na avant da doon def ami dolli ak Adja mais nee na lépp loo xam ne Patty Sène da koy liggéey rek nga fekkee sa biir kër dañ la jox ticket tombala nga mën a gagné li nga xam ne moom mooy téléviseur réfrigérateur congélateur ak yeneen yeneen loo yoo xam ne ne euh, mën ngeen koo am donc pare leen waa Géejawaay suba yéen la waa Petit jox rendez-vous demain incha allah dina ñëw seen i biir kër xool est-ce que yéen a utiliser produit ñu teral leen kenn du ñoom nan dem seetaan publicité ñu daal dem seetaan publicité ñu daal dugg suñu plateau ndax gaa Il y a des moments où on n'a pas le sourire. Pour ces moments, maman a un secret. Allez au bout unique, si crémeux et si délicieux. Ce secret, c'est le lait en l'écran, bien sûr. L'écran, la plus belle preuve d'amour. Et maintenant, découvrez le nouveau secret de vos recettes, le lait concentré non sucré l'écran. Ah. ami seen safal bi wóor ami sama safal bi wóor émission amul na boo fii la lépp di leeree ba tax na tey dañu dalal ki nga xam ne moo di maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf nag député la à l'Assemblée nationale jiite tamit euh, parti bi nga xam ne xamee nañ ko ci PTP parti des travailleurs du peuple euh, nekk tamit euh, ancien ministre ñu di ko wax rek salaamaaleykum maître. coow li bëri na ci li am assemblée nationale fan yi le 13 bi passé bi ubbee session boobu ngay wax di session unique moo gën a grave le 23 juin xam naa li may wax assemblée de day ko saboté du am lu leer laa wax. maanaam maanaam bu ñu maintenir bu ñu maintenir groupe Fada ne groupe Aïda Mbodj amul. assemblée nationale boobu yow metre e la Diouf doo ko bàyyi mu am. doo ko bàyyi mu am te Sénégal yi war nañu wàcc assemblée comme 23 juin ndax lii moo gën a grave 23 juin 23 juin dañoo jéem mais bii dañoo def ils commune commis le crime dañoo dañoo rey dañoo assassiné dañoo fagaagal démocratie ak loi lépp a seer fii Sénégal man damay dem ay Mauritanie ay ay Gambie mais foofu sax dund boobu moo gën a yomb fii. dama jël sama xaalis dugal ko ci gaal yi ndax métti tout temps bi ñoo reprendre à zéro. am na yenn coin yoo xam ne boo fa duggee dangay ngay wax da naan fii du Sénégal de du Dakaaru de te ñun ñi nga xam ne yàlla dañoo def suñu jëkkër gaañu ñu yor suñu njaboot métti na vraiment métti na trop ci ñun. suñu réew Sénégal bokk ci ñaar fukki réew ak juróom yu gën a ndóol loolu doon gis-gis bi nga xam ne moo di kuréel bii di FMI fësal na ko ñi ŋànk nguur gi ñoom weddi lu ñu mel ne jàngat boobule war nañ ko gën a xóotal ndax nag dëppoowul ak li am seen émission décryptage fas yéene ci indi ay leeral dalal ay kàngam yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu koom-koom lépp nag fas yéene leer seen biir émission décryptage 2 lance son bouquet IPTV maanaam mbokk yi 2STV daf leen war a indil groupe télé dina bari am na 2STV am na 2S Racine am na 2S Sport dina am Bantamba TV Al Amin TV musique et mode dina disponible ci li nga xamante ni nii moom la ñuy wax ordinateur dina disponible ci smartphone dina feeñ ci li nga xamante ne moom mooy Android dina feeñ ci iPad yi ak iPhone yi dina génn ci li nga xamante ni nii moom mooy TV box yi mbokk yi ñaanalu ma leen ko mais programme boobu ku doon nelaw wala nga jàppoon ba mu la ci diiru une semaine mën nga ko dabuwaat ci suñu plateforme yooyu nga xamante ni limal nañ leen Il n'y a pas que la beauté dans le monde, il y aussi le cancer du sein. Marchons en rose contre le cancer du sein. Engageons-nous. Ah, donc mbokk téléspectateurs yi ñu ngi ni nag ubbi nañ plateau bi li nga xam ne moom mooy débat bi débat bi su ma ko waxee seen xel day jàll ci sama chroniqueur yi nga xam ne ne dañoo indi yu baax pour yéen ñi nga xam ne ñoo leen daaneel bébé chou ngi fii Eva ngi fii Omoro ngi fii Fafa ngi fii ñi nga xam ne ne tous les soirs le rendez-vous c'est ci entre temps fii ci 2STV ci lan ngeen nekk ah sa cool bi sew na de des trucs sans ma voix. Oui, ta voix, qu'est-ce qu qui se passe Tu es fatiguée Ça fait un peu mal ici. C'est ah. <laughs> Ou tu dors Ou tu dors ah, Non, la petite, il faut qu'elle te <laughs> cherche. Parce que c'est moi, vraiment, hein, il faut nous le donner dedans. Je suis enrhumée, en a avalé quoi hein? Qu'est-ce qu'elle a peut ah, Fafa ah ay see on fait avance. on avance ay ca ah elle la avalé. teel a yeewu daal baax na ci xale. teel tëdd. teel a yeewu teel a baax na ci xale ah, a tuumaal ngi noonu. alors donc nag tey euh, débat bi nag dafay dafay neex ndax rubrique yu yoo xam ne ne comme d'habitude société ngi fii ah, li nga xam ne ne moom mooy euh, beauté ngi fii euh, faafaa ngi fii ak insolite donc tey lan nañu daam société indil tey ci lu baax. xam nga société du ay fond. waaw du ay fond xam nga du ay caaxaan importance. donc téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu leen yoo ah, mm-hmm. kontaan amaat contentement toog fii ci plateau yi pour béggal leen yéen ñi nga xamante ne yéen ñu bëgg yéen ñu safoo. Mm-hmm. tey nag Aïcha ma ñëw ci li nga xamante ne tamit bi ma ne sujet bu eh, dama ne ñu duggaat naa ci xuusaat naa ci sujet boo xamante ne vraiment. Mm-hmm. am na solo te doy na waar. dëgg démb dama doon wax ci alcoolisme tey may wax ci tabac. cigarette nañ si tal élément bu ñaar ci plateau bi. mën a wax ci tabac cigarette. baaxul baaxul. quand même qu'on pouvait interdire à la jeunesse actuelle. que bari na ay ay ay ay néfaste daal. malgré ñu ngi koy def mais baaxul. parce sa santé dina wàññi sa croissance dina wàññi sax sa vision li mu mën a def si nit dafa bëri ku ko toxul moom bañ ko toxul mooy li gën. amul góor ak jigéen a si yam bëgg naa ko bàyyi de. waaw ah, maa ngi jéem. dafa metti nag cigarette comme dafa mel doon loo xam ne boo xasee ba tàmmoo ko daal. balaa problème la de xanaa yàlla dimbali la. dara baaxu ci ci yoon paket ñaari junni bâton bu nekk au moins ñaari téeméer ku mën jënd ku mënul bàyyi ndax ñu ba ko da yàq santé xeeñal yére ku am juróomi dërëm jënd ko cigarette boo ko jënd benn laxasu pot meew sunguf meew naan ko mooy gën sa xale yi moom duma rek ñu ba jigéen ñoom dafa rafetul sax ndax suñu aada suñu cosaan suñu aada suñu culture nanguwu ko kon boo suñu culture bu ñu ko sàgganee nañ ko respecté rek. cigarette moom bon dugg nañ ci maa ngi koy utiliser mais baaxul ah waaw dugg naa ci maa ngi koy regretté nag bëgg naa ci génn mu tëma parce que amuloo la njëriñ quoi. day yàq sa xam nga ni nga meloon au fond ni nga meloon début bi xool dina xam ne carrément waa ji changé na boo xoolee boo xool lépp cigarette a koy def. waaw bu doon sama sago nag bon bëgg naa ko bàyyi maa ngi koy jéem a bàyyi quoi ñeneen ñi ci bëgg dugg tamit maa ngi leen di conseillé ne buñ ci dugg parce que amul njëriñ hmm. ay tux pour nekk beneen monde ak yooyu ay sóob rek hmm. cigarette moom du la yóbbu fenn sa santé daal lay yàq quoi ay da tux pour boo amee problème yooyu non non kii du lijjanti problème kenn da lay yokk problème kañ jigéen gu ci bëgg boppam doo tux ndax tux moom dañ ciy sóoraale sax ci njur ma jigéen bu ci bëgg lu baax bëgg sa carrière dem ci kanam ah sama yaakaar sama gis-gis bu gàtt non doo waaw. kon cigarette baaxul. non c'est pas normal baaxul du yoon. nañ ko bàyyee góor ñi sax du yoon ci ñoom sàkkatuma jigéen ñi góor ñi sax da leen di jox feebar boo xamante ne day indi problème da ngay gis góor buy tuux sax problème mu lekk lay am sàkkatuma jigéen jekku sax ci góor sàkkatuma jigéen sunu moroomu jigéen nañ tudd yàlla waaye te gëm te delluwaat ci sunu borom. cigarette source de maladie la waaw ah, maladie chronique li naan cancer tout ce qui est lié maladie yooyu cancer tuberculose du n'importe quoi alors cigarette mooy sursam xale yi jigéen yi tamit organisme benn la rek bu xale bu jigéen xale bu góor bi taalee tox feebar kee bu taalee tox lay feebar amul njariñ amul sens majeur kooku moom moo gën a pire ci moom moom balaa da lay wóor ni ki commencé à bas âge à partir de 15 balaa 25 ans mu affecté ah, la jàpp la daane la tëral la mënoo si dara. wallaahi bu demul woon tey dama ko wér rek moo ma si dugal billaahi wér rek moo ma si dugal waaw ndax xam fu ma nekkoon ma wér man rek moo ma si dugal mais bu demul woon tey billaahi du ma toog digal baaxul. Ah. da gis billaahi da gis boo yeewoo ba jàpp forme mais nga tux benn cigarette avant ngay dégg nga tux benn cigarette oh, bëgg si dara si àdduna bi billaahi. yow en tant que fumeur lan ngay wax ñi nga xam ñooy tox baaxul kay boo bàyyi ko kay ku ku ku ku mën a dem ñaanlu wala def possibilité bu bàyyi ko. billaahi man de ah man de man de bu démb doon tey du mu tox si billaahi yow baaxul si góor sax baaxul si góor. ah sama la ak jigéen ah cam. bébé sa kii waa ñi sax na xorop xorop. kii dafa neex. nee na àccam neex la def. nee na jigéen ñi àccam defe naa ne élément bi waxal na boppam. ndax ñi nga xamante ne du ma ne du ne ñi ma jël ñëpp ñooy ay tuxkat. Mm. mais la plupart c' est des fumeurs. ñoom seen bopp ñoo toog ne tux baaxul. Mm. kon toogaat fii defe naa ci plateau bi naan tux baaxul ak am na lii am na li defe naa ne répétition lay doon. man li nga xamante ne moom baax loolu mooy defe naa ne mu murid ah, la. man li may wax mooy euh, lan muy solution bi. Mm. c' quoi la solution. ñu war a xool lan mooy solution. parce que peut-être bu ñu mën nañu sensibiliser euh, euh, euh, peut-être que 100 pour 100 pour 100 nit ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi tox mais bu ñu sensibiliser peut-être say dinañ dinañ ci mën a retirer peut-être 50 50 pour cent. Mm-hmm. ci naka paquet cigarette li muy jar dama ne man cher yi. Mm-hmm. parce que boo xoolee en France paquet cigarette.

comme ni paa bi wax rek paquet 5000. waaw euh, la baguette 3000. Mm-hmm. kon defe naa ne balaa ngay toog waaw mooy baguette bi <laughs> benn baguette bi rek 3000 balaa xëcc rek defe naa ne balaa ngay xëcc rek. d'accord euh, di nga sonn sonnati. te auparavant nag dañ doon gis ne que góor yi ñoo daan tox. Mm-hmm. boo gisaan boo da boo gisaan kuy tox góor nga daan gis. Mm-hmm. waaye léegi suñu génération dañu dem ba léegi gis ne jigéen ñi sax léegi ñoo daax tox góor ñi. man nag du ma ci sori. du ma doy na waar waaye daal li li moom la ñu moom nga interpellé nii moom la ñu wax. loolu daal voilà kon nag defe naa nañu jéem a trouver solution. jéem a xool naka la ñuy wàññee cigarette bi fii ci suñu dëkk. Mm-hmm. ba mu war a taux bi mën a dese. mën a wàññee mën a kii parce que en général euh, Eva xam nañ ne bon xam nañ ne cigarette baaxul. Mm-hmm. que ça soit pour l'homme que ça soit pour femme. Mm. parce que cigarette buy parce que looy jëfandikoo mu lay indil maladie baaxul. effectivement il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages bu ñu xoolee ba ci biir c'est comme ce que je disais hier ci alcoolisme cigarette c'est ça fait le même effet en fait ça tue la personne à petit feu ça te tue carrément mm. ça te détruit la santé ça te donne des maladies mm. di nga am ay problème u respiration di nga am ay problème de poumon par exemple yooyu yëpp donc c'est normal que cigarette donc affaire bu bien c'est sûr que kenn mënu ko éradiquer fii mm-hmm. loolu moom je vais pas dire que ça va être simple ou possible mais on peut continuer à sensibiliser les gens. Bien sûr. de tout n'importe quelle sorte que ça soit média télévisé yi wala dans n'importe quoi. uniquement pour war leen docteurs yi aussi di waxanteeg population bi. Mhm. ñu mën a xam. lan mooy les méfaits yi ci nekk ak yan danger la ci nit ñi di rencontrer peut-être au fur et à mesure avec temps dina dem ba ñu bëri dinañu wàññi même bu ñu bàyyi bàyyiwul parce que déjà y a un problème ak cigarette mhm. nit ku tàmmu tox pour nga bàyyi ko c'est tout à fait un problème toxkat yu bëri tey boo leen laajee dañ lay wax man de bëgg naa bàyyi mais mënuma bàyyi mhm. donc ñooñu bu ñu amee kun ñu leen jàppale tey dinañu bàyyi tox bi ñuy def soo xasee ba commencé pour nga bàyyi ko day nekk problème mhm. man gis naa ci koo xamante Aïcha doguma la koo xamante ne moom nee na euh, bu woree bu woree nee na moom benn cousin bam catholique la. Mm-hmm. donc moom bu bu wooree cousin am du woor. Mm-hmm. Euh, bu ko gisee muy toox rek moom dafa woor mais dès mu gis ko muy toox rek dog na kooram. parce que lan moo tax dafa accro ci cigarette ba. Mm-hmm. bu ko gisulee moom na ko bañ a gis rek. mais dès mu gis ko rek àddunaam tukki na. xam nga loolu c'est autre chose. di def chaque jour. di ko bëgg a bàyyi. mooy gis ki benn avantage. dëgg la yaa ngi koy def chaque jour ngay ñaan pour bàyyi ko amul avantage. c'est que boo ko tàmmee pour nga bàyyi ko problème la mais cigarette man très sincèrement man. gisuma ci benn avantage. waaw dafa nekk tàmm laago la rek. da ngay mm-hmm. tàmm benn mbir. Mm-hmm. dem bëgg ko bàyyi si bopp di sonn di ñaxtu pour bàyyi ko doo ko mën a bàyyi. dëgg la waaye cigarette gisuma lenn lenn lenn. lu ci baax kan moo ko gis nag. Mm-hmm. ku ma ci gis avantage ci cigarette. xam nga ne lii mooy avantage bi. da lay tere na la wala day nawloo. day da lay jox sóol. wala day dindi stress ah mais dégg naa day dalay yóbbu ci beneen level. mosul yóbbu kenn mètre doo ko waaw dalay yóbbu deux heures. am na ñoo xam ne nee nañ dañuy dindi stress. c'est-à-dire que soo stressé rek euh, mu daal di jël cigarette daal di sig daal di tuux ñu bëri ñoo xam ne nee nañ stress bi. anti stress la ci ñoom maanaam tuux bi da leen di relaxé loo un peu quoi. donc euh, genre comme li nga dem dem deux heures wala dem ça dépend. Uh-huh. c'est-à-dire que opium yi dañoo bëri. Mm. nga mooy opium yi dañoo bëri. Euh, anti ah. stress de. stress la. waaw nee nañ kenn kenn xam nga ndox loo xam ne boo ki duggee jafe-jafe bu ne ngay def pour bàyyi ko ah. stress bu mag boobu mun nga mun naa <laughs> stress di nga ñaan lu ji di nga fay di nga faju pour bàyyi ko stress mën naa weesu loolu duggee. problème la sax ay ñaan. Hmm. lu nekk nga nekk ci. pour nga dimbali lépp nga bàyyi ko nga bàyyi ko kon bu ci dugg. daal di stress eh, naa ak yow. du stress la problème la yéen pour déjà euh, tux bi am na benn xale bu ma mosoon wax mu ne ma su fekkee ne man dafa gis papaam day tux papaam dafa tux ba bëññi euh, euh, chocolat. Mhm. mu ne léegi su fekkee ne sama bëñu papa yi nga xam ne ne kii la matière matière bu dure la boo xam ne moom moo chocolat kon sama bëñu papa yeeg sama sama sama réew papa yi naka la mel ci àddina ma ne ko dinañ la yóbbu ci docteur bi wala naka la pour mooy di mel mais loolu ci xuus ndax ci débat débat bi bi suu donc day mën <laughs> dañ ciy ñëw waaw nañ ciy ñëw mu ngi noonu donc nag tey cigarette la wax en général mm-hmm. muy muy cigarette euh, suba incha allah wax mm. tout le temps rek dañuy gën a xuus pour gën a jege population mm. proximité ak la population la wax mu génn ci leneen mu ngi donc cigarette la ñuy wax maa ngi fàttaliku juste benn anecdote benn tubaab mos wax nen dafa ñëw Sénégal gis nit mukki gauche mukki droite il a pas compris parce que il avait tellement chaud ne il transpirait de partout ne na tux mi cigarette si envoyé mu bëgg xam mu ne <laughs> nous on fume parce qu'il fait froid chez parce que ñun tàng gi mu sedd gi mu sedd dañuy fumer pour se réchauffer. Uh-huh. parce que kenn ku ne am nga sa raison bi ngay fumer moom. Uh-huh. mais nee na la plupart des gens tellement que dafay sedd que ñoom dañuy jël cigarette si di ci tuuf pour mën a réchauffer seen bopp ndax tàngoor boobu ñuy yëg ça le permet yéen ngi tàng àllum neen réchauffer wu. ah da ngeen di cramer ma ne ko ah on sait on sait pas. kenn ku nekk ah, <laughs> <laughs> décédé. Ah, décédé un projet bi waaw parce que waaw parce que ñu on est déjà chauffé. waaw déjà chauffé ah loolu la. donc on vit pour décédé. comme li ma waxoon rek comme démb li ñu waxoon tout excès est nuisible ah lu ñu jëfandikoo loo xam te ne baaxul suñu wërgu yaram nañ ko jéem wàññi wala boog ñu jéem ko sax nag bàyyi ndax nag wërgu yaram defe naa mooy priorité ah. ku bëgg gudd fan nag ah, da ngay defoo nag nga xool sa wërgu yaram bu baax baax a baax tout excès est nuisible nañu wàññi affaire yi wala ñu yemale ko ñu xool ñu koy jëfandikoo mi ngi noonu c'est important ñu daal di jàll ah, ci madame Chanchon mu wax ñu tey lan la ñu indil ci beauté la chanson oui monsieur Fafa ay lunettes la sol de. <laughs> bah oui c'est vrai ah je moo génn fii ba pare sax. Ama collection may saluer Ndiap ak toute la boutique de Ama. Mhm. au passage. donc aujourd'hui on conseille le plateau de Ama. Ah, collection yow tamit moo fi jaar lépp ñoom rek Ama la. kenn du ñoom. yàlla yàlla guddal seen i fan. Ah. Ah. ñooñu teral. xam nga défilé yi ah, euh, léegi dañ koy def dañ koy def dañ koy def dañ koy def par cachet parce que commencé naa ci am ay client di faye ko parce que am naa ci benn client nag bu ñuy wax Karajo sunu monteur mag bi ci tele bi ah. foo ma jugee défilé bu xëyee suba woon na ma war ma ñaari junni ah. Eh. Eh. ba noppi nag ba noppi yaa ngi ci pertement. <laughs> Karajo tu me vois. <laughs> dawal ne daal dawal ne daal. waaw moom actuellement ñoom. Ah. changé nañu euh, boulot quoi. Ah, ils sont ah, des mannequins. waaw hmm. parce que am nañu mannequin. Hmm. mi ngi may defal affaire mi may defal affaire. damay bàyyi daal mu poobar ma rek ma ma a doon. bon d'accord en fait xam nga beauté dafa nekk loo xamante ni dafa yaatu. Hmm. beauté tey li ma ñëw ci partie bi ma ñëw d'une part on peut le trouver dans d'autres corps. mais ci biir beauté daf ci bokk ndax daf ci am wàll. muy leen hygiène intime. mais tey dama ñëw ci hygiène intime féminine nañ seetaan élément bi ñu ñëwaat sur le plateau hmm? débattre si <laughs> mën a conseiller xale yi jigéen ñi ba ñuy raxas seen kanam ba mu mën a di set tout le temps parce que am na si ñoo xam dañuy faral di am problème yooyu waa sepp euh, baax na ci jigéen sepp dina tax euh, sa perte blanche du xeeñ aussi dina raxas sa bas ventre dina tax tamit boo tuuree ndox boo génnee ci wanag mu xeeñ lu neex sepp dinañ ko utiliser def ko ci bouteille yi pour mu neexal ndox dina déboucher ay rein boo amee doom tamit dina génn meret sepp daal mooy li nga xam ne moom la jigéen di war a utiliser à tout moment mais boo nekkee état de grossesse nag doo ko naan mais bu la dara jotul booy jànq mën nga koy naan soo amee doom mën nga koy naan booy sëy mën nga koy naan dina raxas sa kanam dina raxas sa biir te dina tax ngay xeeñ lu neex kon li mu war jariñ dafa bari jigéen dina maa ngi lay ak xale jigéen yi ñu utiliser ceeb dina tax boo ñaqee sax boo xeeñee lu neex muy mélange bi muy ceeb bi. mélange bi lan moo si nekk. mélange bi am na ceeb bu ñu mocc am na alindaake bant am na alindaake xob dina raxas ba ventre dina tax boo tuuree ndox mu neex dina tax boo amee doom sa meret gaaw a jeex dina tax tamit boo ñaqee xeeñ lu neex. kon njariñ bi mu am dafa bari maa ngi conseillé xale jigéen ak jigéen bu mën a doon soo bëggee bëggal sa borom kër na ngay utiliser ceeb. waaw Ndiaye la maman dama ko dem seeti ko. laaj ko waxtaan ak moom. parce que xam nga hygiène intime féminine mën na dafa nekk loo xamante ni dafa am jigéen ñu bëri dañuy jànkonte yooyu problème moom mooy lan bu ñu koy wax ci en wolof mooy pour sa kanam daal noo koy raxase pour mu set. Mhm. man loolu laa laajoon mère bi mais ci biir wax ji dafa ma indil loo xamante ni aadala ak cosaan. Mhm. mooy ceeb. ceeb ñu bëri xam na ne boo ko jëlee def ko ci ndox di ko naan sax dafay neexal ndox bi mhm. day indi benn guu ci biir ndox bi mhm. ndekete ceeb am na lu bëri lu mu mën a faj ci doomu aadama rawatina si jigéen mhm. jigéen buy gis mbaax jigéen bu accouché jigéen ndekete ceeb sax day débouché ay rein par exemple man loolu xaw ma ko woon bi ma xoot seetee mère bi ci la ma ko expliqué donc juste pour dire que avec nos produits naturels nit mën nga ci set mën nga ci am xet gu neex booy sentir ci sa kanam wala ci sa yaram sans pour autant que yow nga dépenser lu cher Euh, tubaab bi comme ni ñu koy waxee côté pharmaceutique bi mm-hmm. léegi les gels intimes dara cheru si mm-hmm. cheratu ci mm-hmm. boo ci amee 1500 1000 francs pharmacie boo taxaw ñu jaay la gel intime donc yenn problème yu bëri yi nga xam ne mu ngi faral di dal xale yu jigéen ñi ñi nga xam ne dañuy toog par exemple bu ñu gisee mbaax ba pare seen euh, kanam di demee mu naka sudul noonu wala fu ñu toog seen série di tooy wala fu ñu toog di am ay euh, yenn infection yi yenn mycoses yi tey ji pour nga jóg ci benn Euh, difficulté pour nga faj loolu te ñu bëri xamuñu exactement peut-être fan la ñuy jaar pour faju ndax ñu bëri yaakaar nañu bu ñu utiliser loolu rek peut-être dafa cher wala xamuñu fu ñu koy wutee mais tey bépp jigéen boo xam ne da ngay toog sa sër du tooy wala ngay am ay mucose wala ngay am ay infection vaginale mais nag kenn waxul kenn wala infection vaginale mooy indi xeet yi mooy perte blanche yi indi xeet yi parce que am na ñoo xam dañuy faral di toog di am ay xeet seen kanam di xeeñ je <laughs> ah li ñuy wax ne xanaa saa excité Fafa dama ma yegg. Fafa <laughs> bii dama excité. ah yu ne Fafa ci ah, ay ay mycoses la ñuy wax. doo soog a ñor doo soog a ayisee. mais kaw ngaa excité yabal na. ayisee yabal na ay bikoo booy mu commencé yambax yambax. laissez-moi continuer. xoolal Fatou mu ne xoolal Fatou mu ne xoolal. waaw Fatou li sa problème. ah loolu soo ko la sax. ah aywa <laughs> bàyyi ma <laughs> bàyyi ma ñoo jege la kon. ayca. bon en fait c'était juste pour jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy sama moromu jigéen parce que bu ñu xoolee ba si biir la majeure partie des jeunes filles lay gën dal. Mm. mooy tranche d'âge de 12 à 25 mm. ans. Mm. ñooñu lay gën a faral di dal am na si ñoo xam ne dañuy toog di tooy. di am ay mycoses di am ay infections vaginales. di am ay perte blanche te xamuñu lan la wala loolu wala muy xeeñ te loolu yëpp tey jii avec ces produits là boo koy utiliser mère bi mu ngi naan ngay jël ceeb aldanke bi digg bi sachet bi 200 francs lay jar par mm. exemple nga jël ko def ko ci sa ndox mu nekk sa ndoxu naan wala nga def ko infusion di ko naan loolu déjà même booy ñaq sax sa xetu ñaq day neex mm. sa xetu ñaq day neex kon pour nga set possibilité yëpp mu ngi fi pour man étant jigéen mais nag xam nga flore vaginale dafa nekk loo xamante ni tam dafa fragile waxuñu kenn nga jël njàpp di ko bomb hmm, wala nga dem jël yi ngeen xamul yooyu dur donc boo koy raxas sa loxo rek ak saabu wala sa loxo rek avec les gels sa ça suffit te képp même jigéen buy utiliser par exemple avant ngay def le tout bay jël sa loxo di ko def sa sec war nga raxas sa loxo ba mu set hmm. wala nga utiliser des produits antiseptiques nga désinfecter sa loxo ba mu propre nga ci soog a fragile te moog biir a yam lu dugg rek dootul génn te loolu jigéen ñu bëri ñu ngi posé seen bopp bopp yenn ah, muy wax nag la ah, dafa dafa doy waar ndax mu ngi wax ci kanamu jigéen te yëpp xam ne hmm. a fragile euh, na solo parce que nee balaa nga euh, egg sa kanam faaw nga raxas say loxo maanaam soo demee toilette ba war a raxasu faaw nga raxas say loxo ba pare maanaam nga setal li nga xam ne ne moom ngay euh, jëfandikoo nga doog a nag ñu da ngeen di réewal na ah, problème oui dis-moi. Euh, débat yi soo koy wax il faut que ñuy am ñuy expliqué ci plateau yi. parce que Fafa il est excité. Omaro il est mort. il est bouche bée Omaro nitu diine la waaye Fafa. il ne faut pas c'est pas son problème. il ne faut pas confondre les choses. dafa am la. Uh-huh. donc nga ne dafa fragile c'est pas. waaw dañu doon wax maanaam euh, problème yi maanaam microbe yi nga xam parce que tamit euh, kanamu jigéen dafa fragile. Ah, bactéries yi dañ ciy nekk. tu que je veux dire. Mm. dafa bëri ay bactéries déjà yow. sa slip ah, un jour may ma ah, eggal la déjà slip. Mm. soo ko fóotee. Mm. weer ko warul yàgg waroo koo weer à l'air libre xam nga tax. on fait un truc très dangereux dañuy fóot suñu slip weer ko ca naaj ba ca mbedd ma wala ca ëtt ba. yow soo ko weeree. mais toute la poussière euh, revient sur le slip maanaam mm. poussière bi yëpp day ñëwaat ci kaw slip bi nga ñëw nga solaat ko soo ko solaatee bactéries yi nga xam ne ne posé wu ci slip bi day yéegaat sa kaw. mais Aïcha juste pour t'ajouter foofu un truc. Mm-hmm. déjà li ñu recommandé mooy slip nga weer ko foo xamante ni dafa am des rayons solaires ci mm-hmm. naaj bi. Mm-hmm. wala nga koy passé balaa nga koy sol. parce que ñun dañu am tendance di jël slip yi di ko weer ci biir toilette yi. alors que biir toilette yi boobu day causer des pertes blanches. day causer am ay bactéries wala ay problèmes loolu dina indi problème xale jigéen yu bëri aussi mm. képp koo xam ne amoo temps di ko passé mm, boo xëyee suba nga weer ko ci naaj bi ba pare ba mu tàng jër nga doog koy jël mm. denc ko parce que loolu la ñu recommandé aussi noonu lañ koy passé ndax passé bi nag mooy rey bactérie parce que parce que naaj bi aussi soo ko weeree fii on en Afrique y a beaucoup de poussière li ma wax da koy weer te naaj bi poussière ba ne nga ñëw nag sol ko ne ca ñàpp bëgg xam ñi la la ñuy Il y a des choses qui se passent sur le plateau. en fait euh, euh, vraiment oui si baal ma baal ma dégg nga. Paa Ayca on parle de microbe là. un jour daf fi wax ne. le saint xaw ma c'est le monsieur de la femme. waaw daf ko fi wax. kan moo ko wax. bi ngay def carte du saint. waaw dafa am importance ci jigéen. dafa am importance ci jigéen parce que on a dit que le saint c'est le monsieur de la femme. Mm-hmm. Mm-hmm. mais je pense que man. Euh, ni ñu koy waxee sax li nga doon wax léegi. le sexe. waaw le sexe c'est l'intime de la femme. waaw. c'est la voiture. Eh. Eh, c'est la. Eh, la voiture de la femme. Fafa parce que d'accord. bi nga ne ma fragile léegi dama tiit dama ne <laughs> ma xam ne lu am solo la. <laughs> mais Fafa non non la. baal bi daal baal bu parce que dafa nekk ne. Mm-hmm. dafa sensible aussi. te lu ëpp solo ci jigéen moom la. Mhm. partie bi gën a intime partie bi ci ëpp solo. Mhm. partie bi ko gën a soxal moom. Mhm. yaa ngi dégg loolu dafa laaj toppatoo gu gu gu gu wér. <laughs> soxal ma soxal soxal partenaire soxal ak soxal jëm waaw mu nekk loo xam ne da nga ko war a toppatoo à 100 pour cent. waaw yaa ngi dégg du ay caaxaan. dëgg la du ay caaxaan de. non du ay caaxaan. nit ki boo fonkee sa bopp. da ngay fonk li gën a. fort ci li nga xam ne moo gën a am valeur ci yow. Ah. parce que loolu mooy yow. mooy base bi mooy bi mun nga jàpp kanam capp cappal ko ba mu mel ni indo. Hmm. fekk laaw la ca sa kanam comme o oh, laaw la ca <laughs> fii dañuy toppatoo sa ah. loolu moo ko solo ci yow man dama leen bëgg wax benn affaire. Hmm, hmm. Euh, li ngeen di débattre nii c' vraiment c' est parfait. parce que nit mën jigéen mën na ci jàng. parce que am na jigéen ñoo xamante ne peut être dañoo xaw a bi ba du ñu mën a toppatoo seen bopp bu baax. mais j'aurais préféré vraiment yii nañ koy wax euh, à l'insu de Omar Gueye l'ambassadeur la révélation de l'international parce que nag mm. il faut respecter ses prochains te gis nga Omaro mii mm. daf ñoo bëgg kii daf ñoo safoo te nitu diine la kii mooy révélation El Hadj Ndiaye te du wax ci sexe. Eh, déedéet déedéet du ci wax du ci wax bàyyi la li ngeen def. c'est une information ce sont des clauses je la sur Il ne parlera pas de eh, sexe. la révélation. Arrête de le chercher. regarde son visage innocent qu'il a là. <laughs> Révèle, réveille-toi. Révèle. donc gis nga en fait lii la ñuy wax lii la ñuy wax sujet tabou par exemple gis nga ci Sénégal dafa bëri ñu bëri ñoo xam même vis vis jigéen ak yaayam am na lu bëri ñoo xam mënuñu ko wax parce que defe nañu tout est tabou alors que non ñun fii dañuy nekk pour indil population bi indil téléspectateur loo xam ni da leen di amal njëriñ lépp ci biir kaf bi agré bi mm. avant ci kaw loolu yëpp am na fulla bu ci nekk mm-hmm. donc y de sujet tabou mm-hmm. c'est des trucs yoo xamante ni quand on mm-hmm. parle de beauté ni faa ko wax léegi dëgg la da ngay gis jigéen goo xamante ni comme per kaw ba suuf mais tey ji boo nekkee ak moom wéet ak moom macha da ngay daw abal ko xëy na peut-être kooku du sagoom xamul yi genre génne ko jàngal naka tuuti. et puis li ci gën a dangereux mooy yenn saa yi jigéen mën nga mën nga dégager odeur te bañ koo xam sax. doo ko xam. yow yow xam ne am ñoo xam ne dañuy mm. dégager odeur. Mm. mais soo toogee ni ma Aïcha kat da xeeñ wala am nga mm-hmm. odeur wala woo ma am na wax ak man ne ma est ce que kon man man ma xam ko dem faj ko wala dem xool lan moo ciy pexe moo gën may dem ci mbedd ma ñu may xokk sante ka mhm. waxtaan lu dëgg da moo tax sujet tabou yooyu il faut ñu koy teg table di ci wax di ci wax comment il faut ñu teg table di ci wax te entre temps mooy plateau teg table te man ay for naa for naa ci weeru bëy ci weewu bëy mhm. am na jigéen ñoo xamante ne peut-être dañuy xeeñ mais du seen sago mhm. dañ ko judduwaale kenn judduwaalewul xeeñ eh, man loolu nanguma ko a na ñoo xamante ne non non si si <laughs> am na ñoo xamante dañ ko judduwaale loolu dégg naa ci seen première sang seen première sang ah voilà ayca la nangu ma ne ki nga sama juddu wala kay xam nga lan la waaw monsieur jërëjëf nañuy sang bu set juste pour close ñooy close que pour dire que par exemple beauté c'est pas toog di capp cappal toog di maquiller di def pédicure di def manucure pare donc beauté ça englobe beaucoup de choses mm-hmm. que ça soit ci vaisselle yeeg ci parti yeeg n'importe mhm. quoi ni mu amee euh, hygiène intime de la femme mhm. noonu la amee aussi hygiène intime de l'homme te dinaa ci ñëw te dinaa ci ñëw Aïcha mi ngi noonu donc nag euh, euh, hygiène intime de l'homme et de la femme fii nag mooy entre temps sujet de tous les tabous y en a pas ici alors ñu jàll ci ki nga xam ne ne moom mooy Fafa ah. ah Fafa tey moom sujet tabou am waxal lu la neex indicatif bi ah. ah, gaaw leen journal la ngi du ñëw de taxaw ngeen tàccul ma ko bu ñu gee taxaw ngeen tàcc ma ko. di nga tàcc muy def di nga tàcc muy def di nga tàcc muy def di nga tàcc. xam nga ne xam nga ne Omaro sa promotion la ko jàpp. nee naa fekk kanam bala jugee la ko tal. Eh, nee na ma promotion bi promotion bi nag tey lay jeex ma wax ko en direct. ah waaw Aïcha waaw balaa loolu eggal li nga balaa journal la dugg. démission bi démission Aïcha ñëwoon. bisimilah. mënatuma ko. Mm, comme d'habitude comme d'habitude amul taayu amul xëcc. Mm. élément bi la ñuy seetaan rek te ñëw waxtaan ak ci bu baax a baax Aïcha laay. neex na surtout xam nga lu ma gën a neex mooy ambiance bi ambiance bi nekk ci biir ak déggoo bi c'est très important euh, liggéey bu am collectivité dafa neex. parce que euh, dafay tax ñuy seetaan aussi ñuy am courage di seetaan est-ce que da ngeen di mel ni ay frères et important. Uh-huh. Euh, ci yoo xam ne dañ koy def ci koñ yi. yaa ngi dégg day naan ndox mi yëpp quoi day tax inondation yi wàññeeku. loolu noo ko trouvé yow. waaw loolu mm. population bi ut solution yooyu tam baax na trop. ñu yëg ne tey kii presse Euh, scientifique yi dañoo découvrir ay carte mémoire yoo xam ne dañ koy teg ci koñ yi. Ah. koñ bi ñu ko teg day naan ndoxu fa nekk yëpp loolu loo ko gisee. ah c'est une bonne initiative ah pour bi waaw. waaw su nekkee su loo xam ne kii na baax na parce que dëkk bi euh, actuellement Sénégal war na mën a euh, mu mel ni comme Europe surtout Dakar xam nga war na mën a dépasser période bi nekk nii quoi ay eau di stagnante si yoon bi affaire yooyu war na ko mun a dépasser xam nga parce que c'est une waaw parce que tuuti ah, euh, capital boo xam ne tourisme fii la gën a développé je crois que euh, suñu amee loolu dina gën a mën a kii rek quoi attirer kii la le tourisme quoi. carte mémoire ah <laughs> bala ma ko gëm daal dama ko gis en tout cas waaw man daal vraiment loolaa xam. yaa ngi yëg ci presse bi yëpp ne scientifique dañoo découvrir benn carte mémoire boo xam ne dañ koy def ci koñ yi. day naan ndox bi yëpp yëngoo ko léegi loolu la ko gisee yow ndax idée bu baax la wala la. man lool loolu ma ko ne mais mais ah, buñ ko defee affaire bu nice la quoi mais suñ ko defee baax na suñ ko defee ndax dina jëriñ nit ñi quoi ndax ndox bi ñi ñi di si xuus da leen def ay jàngoro da leen da leen indil feebar te loolu jaaduwul quoi. Euh, dañoo découvrir ay carte mémoire. ah, ah, ah ci inondation bi je vous repose la même question dañoo découvrir ay carte mémoire yoo xam ne ñu ngi koy def ci koñ yi day naan ndox mi yëpp nag. yaa ngi dégg waaw léegi li ngeen ci xam yow Bébé Chou. oui loolu c' est une très bonne idée. c' est une très bonne idée. waaw c' est une très bonne idée. parce que la révélation bu mu yegg si rek man. balaa mu laa <laughs> naan ne ko naanee ci àll ba balaa mu mën naanaale ma. balaa mu mën ma ak sa waa kër. ne ko naanee ci àll ba. ay sa yow non ci surfer rek man. waaw <laughs> mën naa surfer fekkee daal mën nañu cee surfer rek <laughs> ma wax sinon bëgguma. yow xanaa na nga ko yóbbul ak dëgg na ko yóbbu ndax. mu naan lan fleuve bi. mu naan fleuve non non monsieur Ndiaye laa koy jox mu def ko ordinateur parce qu'il en a besoin. mais monsieur Ndiaye bu bëri yaa ngi koy préparé nuyoo bu rëy rëy <laughs> man sama rubrique bi tey dama ko may rek uniquement. Mhm. waa Gambie ak waa Fouta. Mhm. Momar Diop Gambie douane maanaam sama rubrique tey moom laa ko ak ay mon frère waaw ma nga ma nga ma nga Fuuta hôtel Hayo. Mhm. fa la dallu moom laa ko amee sama tey bi rek. kon mu ngi waaw donc nag euh, question bi mu posé neen dafa am dañoo découvrir ay carte mémoire yoo xam ne day naan ndoxu inondation defe naa ne loolu ku ko dégg mais ah, ah, waajal foog naa quoi kii wax ne ah. man balaa ah, ma ko gis dama dopp nee na koo gëm gis ko. Mhm. te te nag ngeen wul maanaam nag nag quand ko ci kon muy naan ndox ak euh, courant bu nekkee déjà carte bu dee réservoir la sax. ndox ba may naan yëpp day <laughs> nekkaat foofu noonu ci biir koñ ba yaa ngi dégg la mu occupé woon lay occupé waat rek ah, est-ce que dégg nañ question bi. dama ni est a que dégg nañ question bi ñoom dégg bi c'est-à-dire que dégg euh, avant may ñuy terminer s'il vous plaît de ma juste me souhaiter joyeux anniversaire à ma copine à moi Bintou Kandji je te souhaite une longue vie sois heureuse. yàlla laay doo tax tubaab ma doo tax tubaab Eva dama soof quoi dul xatu lan la. juste ah, pour pignon. Eva bàyyi ñu waay Eva. Batul itam tey la anniversaire am. ah Batul li suuf ah Batul li sama hmm, sama rakk ji. sama doom ju baax ji kenn du moom. nga eh, xam nga ne deret bi sama deret. Eh, bàyyi li nga wax eh, nekk sa mbokk la. sama doom baa jël. waaye Eh. Eh, ba kër maam bi lañ bokk baa xam nga ne maay baayam xale boobu ndeyam ak baayam sama loxo lañ ko teg boobu léegi yaa ngi ñokk voilà donc on va ñu eh, leen ak euh, Ama Collection ñu koy remercier bu baax waaw Ama ñu koy remercier di ko sant di ko a yàlla ko yàlla waaw waaw ñaari adresse la benn baa ngi fii en face Alibaba mhm. beneen baa ngi Liberté 6 ci deux voies yi ku ah, fa dem daal am na parcelle tamit ku fa dem daal Ama faj say soxla

seetaan jërë ngeen jëf. aywa donc 18h bu ko ratee rek na nga ko xaar 18h incha allah di nga ko seetaan à demain